sëriñ Xamidullahi ak sëriñ Mahmadan ñu ngi leen di jox nuyoo bu sell ngeen jottali ñu ko Seex Muhammadul Muntaqa te ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu àggale yéeneen ak liggéey bu sell bii mu def ci dëkk bi ci barke Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñi ngi nuyu mbooleen kilifa gu fi teew di kilifa aada commencé ko ci monsieur le maire de la ville de Touba monsieur Abdoulaye Ka teg ci ñi mu àndal ñëpp muy équipe municipale bi muy liggéey loolu di nuyu ay invités monsieur le gouverneur de la région ak ay adjoints di nuyu monsieur le préfet ak monsieur le sous-préfet nuyu. chef de village yi fi teew yëpp commencé ko ci Serigne Modou Mbacké teg ci Serigne Modou Ba ak Serigne Abo Mariana moom laa wax na ci turu Serigne Saliou Dieng chef de village Touba bu Xaatu Moubarak ñi ngi sant mboolem askanu Touba bu Xaatu Moubarak ñu teew yëpp ak seen chef de quartier di sant aussi chef de village yi nga xam ne si ni mooy ñi ma leen léegi ak seen ay chef de quartier di ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taala liggéey bii monsieur le maire sumb di pose première pierre tali gi ñu àggale ko ci jàmm ak salaam te yeggale ko ñi ngi sant bu baax a baax a baax en ndawul chef de village Touba bu Xatu Mubarak monsieur le maire yéen askan wi ñuy déglu nga xam ni lii monsieur le maire Abdoulaye Ka def yéen la ko defal dama bëgg ngeen tàcc ko bu baax te sant ko bu baax a baax a xam ni président la république monsieur Macky Sall bu yàlla dogalee mu nekk ci bopp réew mi mën na dem bitim réew wuti ay projet bu wutee ay projet bu ñëwee da koy indi ci réew mi séddale ko communes yi communes yi mu koy séddale toll nañ ci 532 communes bu yàlla dogalee monsieur le maire ak équipe municipale am góor-góorlu ba nekk première ci juróom juróomi téeméeri communes yooyu am ci wàll woo xam ne si moom lañ nekk tey fii di ko séddale ñu am ci ab tali loolu njàmbaarteem la. fullaam la ak faydaam la ak dëggoom pas-pasam raison pour laquelle ñun en tant ndaw te xam ni ëllëg lii muy liggéey yàlla mën naa dogal ñun ñooy ñi koy jariñoo kon ñun lay defal am nañ devoir ak obligation sant ko baax baax baax baax kon monsieur le maire Touba bu xatu mubarak saamu sëñ Abdou Latif saamu sëñ Bara Khoudia ak Touba Mariana ñi ngi lay sant bu baax a baax jëf ji bu baax a baax ji ndax jëf ju rëy rëy rëy la te amoo benn obligation pour indi ko fi kon boo ko fi indee xam ne yàlla na rek moo tax kon askan wi ñi ngi lay sant bu baax a baax a baax ñi ngi sant aussi askan wi nii nga xam ni ñi lañ leen wooyee ñu wuy si xam nañ ñi lii maire def ñoom la ko defal moo tax duñ leen wooyee ñëw nañ bu baax a ak seen chef de quartier yi ñu àndal du ma guddal kaddu gi chef de village Serigne Saliou Dieng daal nee na xolam sedd na xelam dal na sant na ñëpp sant na monsieur le maire sant na kilifa yi fi teew yëpp mi ngi ñaanal aussi Serigne bi yàlla yàggal ko fi wéral ay cëram ba liggéey maanaam bii mu mën koo liggéey ni mu ko bëggee mi ngi sant bu baax a baax aussi média bi. dafa tudd ay tur nommément ñu mën ma leen sant ndax ku ñuy wax Mortala Fall ak Cheikh Amar ak média bi ci àndi ñëpp communicateur traditionnel yi Modou Mbaye Touba Modou Mbaye Ndiaye ak ñi liggéey bi mi ngi leen sant ndax bàyyiwuñ bu xatul Moubarak ginnaaw fu ñu toll ñi ngi wax lu avancé bu xatul Moubarak kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ndax ñun ngeen takk si di jiital nuyoo bi Serigne Mouhamadan moom Cheikh Abdoulahat njaboot Serigne Touba gi fi teew yëpp ak yi yëpp ñëpp di nuyu monsieur le ak euh, autorité yi mu àndal di nuyu monsieur le maire ak équipe municipale bi mu àndal xam ne ñëpp suñu nit yi bopp lañ di nuyu dëkkandoo yëpp délégué de quartier yeeg chef de village yi ñëpp. bu ñu yàlla julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñu nu may taxaw fii kon nag wax ji bi koy tàmbalee ci turu kii Serigne Touba ci lañ koy tàmbalee mooy Cheikh Mamadou Mountakha muy sunu lépp tey ak ëllëg di sunu kilifa di sunu kiiraay di lu lépp moo joxe ndigal ne na ñëw fii kon nag ci turam la ñuy waxee Serigne Cheikh nee na kon mi ngi leen di nuyu di nuyu bokk yëpp di leen saam saam nag. tur yi bëri na fi ñu tudd ci Sàmm bëri na waaye kii mooy Sàmm kii mooy dëkkub Maam Mor Jaara bi mu sañcoon lu ci mën di aju ba fu mën di dëkk àdduna yeme rek kii mooy cosaan bi Maam Mor Jaara moo ko sañc ci ndigalu Serigne Touba ci 1888 Serigne Touba jógee Touba ci sant bi njëkk ba ñëw def fi xalwatu juróom-ñaari fan léewu ko rëdd jàkk ji nga xam ne moom la Serigne Cheikh Abdou Latif di defar tey kon fii ba ñànke ba Mbàkke ba Mesere ba euh, bu san suufa su Maamoor Jaara sumu gor dëkkoon dëkk bi ak njabootam njaboot yi fi féete woon nag ñëpp jaar yu bari jaar nañ ci waaye sëñ a yàgg gën ko fee féete woo boobu ginnaaw bi la sëñ Abdou Latif doon ñëw xam ne daal saam ab dëkk la boo xam ne sëñ Touba da koo cëraloon cëri la ko Maamoor Jaara njaboot sëñ Touba gépp it fenn ne woon loola di ko dox ñoom sëñ Abdoulahat Mbacke ca mag ga ak man ngaa jiite bi waree bi tabax waree tabax daara ji université bii dafa yónnee sëñ Seex moom sëñ Baara Uré ñu ko damaa soxla woon fii mu ne ko yaa moom lépp loo neex def fi mu ne ko waaye ginnaaw la fi nekkoon rek laay dundal kon lu ñu si mos a def ba ci fànn yu jóge bee rek bu ñu ko daataa def yónnee nañ sëñ Seex kon nga xam ne kii suuf Mamoor Jaara njaboot Mamoor Jaara ñoo fi dëkk ñoo ko moom lu fi waaye def it ñoo koy defal kon nag monsieur le maire ñoo leen di dalal jàmm ci suufu sàmm di sant bu baax it nag ci bi ngeen séddee séddale te fàttewu leen ko ndax fii rek la na am ndax ku séddale fàtte la limaanewu la te li limaanewu rek nawloowu la kon alhamdulilah rabbil alamin bi ngeen limee bëgg nañ daal comme ni ngeen ko waxee des enclavements wala tax des enclavements certes mën naa am mais nag fii li muy jege ak pencum sa yab la tis bii 400 mètres rek la mais ba taxoon tey doo mën a jàll da nga wëri sori kër sëñ trente bi six cent mètres mais bu tawee doo dem ndax ay dégg ba dafa nekk kon dèjà désenclavement bi dañ ko bëgg a tàmbalee foofa li ñuy olof yi wax nag ku warul mburu tëdd tëdd ab dëkk bëgg nañ daal ñu xam ne cëri Mame Diarra tey moo amle nañ ko ci sedd ba noppi keneen ku ñuy sedd doon ko ko doon ko sedd ndax Alaaji Cheikh Mamadou Lamine Bara dafa waxoon wax ju rëy jox doo ko fàtte ko mu dama faa dem bis di ko wax mbirum saam ak ndox mu fi manqué mu ne loolu naa bañ a am jiir lappe ndax fekk naa ko yow sama xarit nga loolu soxla war naa ko def ñaareel bay maam ñaare ci Tuuba balaa kenn séddu daa war a sédd kon dèjà bu ñu demee bay séddu nag dañ ko sédd ba ñëpp xam ne sédd nañ ko fu mu law jam doon faa jëm kon loolu rek dañ ko ci souligner di sant bi ndax bu leen neexee jëmee ko fu ne waaye bu ngeen tàmmee jëmee si ko fii nag ñoo ngi leen ci sant parce que yéen a yi rek ànd ceeg yéen ci lépp ci lii rek lan am duñ fi tuxu lu fi waay def daan ko gis lu fi waay deful yëg nañ ko duñ ko xuloo waaye jàpp nañ ko ay nit bi dëkk yoo xam ne xam nañ lañ war a xam xam nañ seen bopp am nañ fulla kon nag ñoo ngi sant ñëpp yoo xam ne daal jërëjëf gën a sant bu baax it ak xalaat bi ak def gi fii kon nag sëriñ si nee na ñu ngi leen di dalal jàmm ne ñëw ngeen ci suufu seen maam lu ngeen fi soxla nañ ko yëg wax leen fi ngeen di jaar ak ngeen ko war a defee ba keroog taxawaat fii di ubbi ci kàttanu yàlla waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonte bi Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yeesal suñu taalibe ak suñu jëbal ak suñu yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ñaanal sëriñ Muntaxa président de Mouride suñu borom jàggal ko te wéer ko ak njaboot Sëriñ Tuubaa gépp di ñaanal suñu bunt Sëriñ ñoo ngi jël suñu kàddu ci turu Sëriñ Abo Mbacke moom Sëriñ Cheikh Say mi xam ne mooy chef de village su Mbadiar bi moo ñu fay war ñu ngi ñu war a wax ci ne ñoo nekk bi di fi jotaay ak Serigne Touba di sëñ Mahmoud di suñu waajur ak sëñ Habibou moom suñu Fallou ak mboolem ñu jëfandikoo Serigne Touba bi ñëpp di suñu waajur di jégalu kàddu yi nga xam ne ñoom ñu yëg seen kanam. ah di di sant ci euh, jël kàddu gi di sant bi maire ak préfet ak sous-préfet ak autorité yi yi nga xam ne ñu nekk département bi te defal président de la République di def lu projet bi bu baax a baax a baax bi nga xam ne moom la président de la République indi di suñu gox bii mu diggante Madiyana ak Saaw. te xam ne di ci bég lool macha allah te xam ne lii ba waree am yàgg na waaye nag comme bi mu amee nii ñu ci sant di ñaan suñu borom yeggale mébét yëpp barke si Tuubaa ndax projet bu ñu def ci Tuubaa rek yoonu wut yëpp ñu ko defal ndax bu ñu ba soñoon de day mel ne Makka ak Madina taar te kon boog bu président ci ne projet bi topp fi ngir bëgg soqali diggante Madiane ak Sam ak jafe-jafe yi amoon ndax nawet mosaan jot kenn mos a jaar fii kenn mënut a ca jafe-jafe yu métti rek lañ daan nekk kon boog bu am projet mii nii bu mel nii def ko fi ñoo ngi ko ciy sant di ko gën di tur waa Madiane gépp Madiane un ba ba deux di leen sant tamit ci turu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Sohaybu bi di nga xam ne moo ñu fi yebal ngir ñu teewal ko fi teewal ko Serigne Abo ñu ànd ak suñu kilifa Serigne Abdoulaye Hak ak Serigne Moustapha ak soxna Mame Say ñi nga xam ne responsable politique la nekk ci APR di si jàmbaar loolu moom itam euh, euh, euh, ñu ñëw fi teewal ko Serigne Cheikh teewal ko Serigne Abo di ko defal bu baax a baax di ñaanal président de la lii mu def nii na lool waaye su ko mën a yàqale ci matériel bi yëpp dana baax ndax saa bu nawet jotee dañ am jafe-jafe-jafe pour pour pour pour pour jaar ci mbedd yi. bari na fi mbedd yi bëree bëri yëpp buñ soo ñu defoo li ñuy seetlu si dëkk bi bëri lool waaye pour ñu gis suñu bopp day jafe pour ñu gis suñu bopp day jafe lool ah néew na lu ñuy seetlu si kër si dëkk bi ak ñu ko mën a yor ñëpp ñu gis suñu bopp waa ñu koy gis waaw. waaw bëgg na mu taxaw mu mu yokk taxawaay bi bii jëm saam baax na waaye am na yeneen mbedd yu nekk ci waxtu xaalis ay doomu aadama ba dëkk dañuy fay impôt comme Sénégal yëpp dañuy fay ay taxes comme comme Sénégal yëpp li ki far na koy def comme ñëpp poste santé bi yaakaar nañu ko wax nañ ci jàpp jox ko centre santé waa gox bi ndax Madyane dafa am ginnaaw dafa gox fii ko saam ak jant ak kàtt yu bëree bëri bëri poste santé bi ñoo ko ñaan mu taxaw si defar ko Madyane ari woon na am ñetti poste santé ak santal santal bu mag a mag ñoo ngi koy ñaan mu def ko am na ci yoo xam ci ba léegi am du ay tëj ñoo ngi ñaan mu yaatal tëj yi yëpp defal ko dafa ay lampe ak courant lépp doy waaw ñoo ngi ñaan loolu baax a baax mu yaatal ko lii ak tàmbali nag waaye na ko gën a yaatal kaddu yi nag lu ci dëng ñoo xam ne suñu matériel waaye lu ci dëng xam ne dañu ko yëngal jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. maa ngi nuyu képp ku fi

conseil municipal bi ak euh, chef de quartier yi nga xam ñu ngi fi teew te ci tronçon bi nga xam tali bi fa jaar. maa ngi jël kàddu bi ci turu société bi ñuy wax Socabek bi nga xam bi de moom moo gagné marché bi liggéey tali bi. tali bi da expliquer liggéey bi techniquement nu mu tax fi jël euh, tali bi la. huit virgule deux kilomètres maanaam juróom-ñetti kilomètres yoo xam ne teg na tuuti mooy guddaayu tali bi mu ngi commencé ci corniche ba foofu la ñuy wax PK0 mooy corniche bi ci marché Mbaria jaar euh, ci marché bi jaar ci ñetti saam yi ngeen di tudd léegi mooy saam Jaxate saam bu Serigne Abdou Latif ak saam bu Serigne Bara Khourédia dem ba porte yu xonq ya boobu tronçon de deux soixante six kilomètres la waaye am na yeneen bretelle maanaam yeneen tali yoo xam ne dañ koy galan mooy bi nga xam ne day dog tali bi jaar ci jumaa ji nga xam ne moom lañuy ñuy wax mosquée des immigrés d' Afrique du Sud maanaam immigré yi nekk ci Afrique du Sud jumaa jooju ñuy liggéey tali bi dina jaar foofu jaar marché bu bees génn tali bi aussi am na beneen tronçon bu 800 mètres boo xam ne dina jóge ci jumaa jooju ba léegi jumaa immigré Afrique du Sud dem sës ci tali Serigne Sidi Mokhtar donc loolu mooy tali bi bu muy jaar. waa mairie bi nag am na yeneen yu ñu bëgg sax ñu teg ko ci mais pour le moment li ma leen wax nii mooy li nga xam ne ci la ñu engagé wu en attendant nag bu sottee xëy na bu ëpp loolu. tali bi nag tali la boo xam ne dañ koy defar ci standard yi maanaam largeur bi huit mètres la juróom-ñetti mètre mooy yaatuwaay bi ba nga xam ne ñaari oto dañ ko mën a daje. am na aussi ay trottoir ci côté ci structure bi maanaam dëgërlaay bi télé bi am na vingt centimètres couche de latérite moom la ñu wax couche de base après dañu tegaat beneen vingt centimètres latérite boo xam ne dañ koy mélanger ak ciment moom la ñuy wax couche euh, de base maanaam vingt centimètres yi ma njëkk a wax mooy couche de fondation yeneen vingt centimètres yi mooy couche de base bi moom mooy am ciment bi muy quarante a ak revêtement boo xam ne bitume la béton bitume la mooy enrobé dense mooy defe naa ni guddoon nañu nga xam mais techniquement dañ koy bidime bidim la loolu mooy structure tali bi am na zone yi nga xam ne nag ndox mi dafay jaar ne ñun yéen dañuy liggéeyal ñëw ñu pour yàq dañoo ñëw defar te waxtaan nañ ci ak euh, waa Aynu Rahmati ak waa OFOR ak service technique yi fi nekk yëpp daal ba nga xam ne lépp luñ fi yàq dinañ ko jéem a réparer. loolu aussi ñu ngi leen ñaan ngeen comprendre ñu ngeen jàppale ñu ci loolu wax leen aussi liggéey bi am na volet social personnel d'encadrement bi nga xam ne jëlee nañ ko ci Dakar lépp lu di ouvrier fii lañ ko bëgg a jëlee waxtaan ci ak chef de quartier yi jël ñi nga xam ne ñoo dëkk fii ñoom ñoom ñuy liggéey ci tali bi loolu aussi dañ leen koy xamal gis ni ko tey te commencé nañ sax dèjà jël ay nit yoo xam ne fii ci Touba la ñu la ñu dëkk donc daal euh, man dama guddal trop kon wax ji voilà xaw na gudd mais c'était juste pour expliquer leen projet bi mu demee vraiment di ñaan ngeen jàppale ñu ngeen dolli ñu ñaan ba nga xam ne dinañ ko àggale ci jàmm ak salaam jërë ngeen naissance Macky Sall ci turu Cheikh Omar Gueye ministre de la gouvernance territoriale du développement et de l'aménagement du territoire yi nga xam ne moom laa teewal fii mu yebal ma te bëggoon lool ñëw te dina ñëwal boppam fan yi ci turu gouvernement bi di nuyu sëñ Mountakha

administration territoriale bi ma àndal le sous-préfet de Ndaam nga xam ne moom la àndal fii teewal fi gouvernement bi di wax ne a ah, man de ñun day administration gëm nañ ne Touba wuyu nañ seen tur ndax sëriñ Touba jaamu yàlla ak liggéey la santaane li ñu fi dajale ne tey gouvernement Sénégal ginnaaw bañ ko dogalee programme PACASEN daanaka su ma neexee ne mayew ko daf koy jaay mais leen la koy jaay mooy maire yi nangoo liggéey te condition yi mu teg mu remplir condition loolu gouvernement bi tegoon nekk ne alal jooju ko ko bëgg a defar da respecte respecter charte ya ak maire Abdou Lahad Ka respecté nañ ko cent pour cent loolu moo leen may lii tey donc li fi am tey ab liggéey moo ko maye dañoo teg ay charte maanaam ndax respecte nga texte yi est que respecté nga code des marchés est yaa ngi formé élu yi ay charte yu méttee métti waaye bu ca teg rek mairie Touba ñoom respecté charte ñu ne kon yelloo na alal jooj ñu teg ko ci mairie Touba ndax ñii ñu jar a jàppale leen loolu moo waral bés bii donc yombul woon waaye ñii ngeen jiital sëñ Abdou Lahad Ka mii ak ñu mu àndal muy conseil municipal fi ngeen leen teg ñu ngi liggéey guddeeg bëccëg pour mu yokk te dina yokku ndax juróomi salte euh, poste de santé war nañ nee na tabax moom wax na ko ci alie euh, dëkk yëpp mën naa leen lim ngeen xam ne lu ñu inventé amu ci alors euh, war nañoo tabax poste de santé Sam Serigne Abdou Latif Alieu Touba Belel ak Touba Ndiarèm ci quartier yooyu vingt salles de classe ci dizaine d'établissements scolaires ndox waxi noppi dina ñëw ci treize village yu am ndoxu naan jën jënd ñaari camion manque te ndox maan yi gis ngeen ko di ñëw ak ñaari oto pick ak ñaari corbillard tak foofu laa ci yemandi la des moo ëpp li ma lim te loolu lépp ab liggéey moo koy maye kon boo fi ngeen teg seen tànk yéen waa Touba fii la njiit yi am ay njiit yu am njiit lañ ñun nag gouvernement bi dañ leen accompagner ci liggéey lépp taxawul leen jàppale leen Touba ku ko bëgg a ku defar réew mi Sénégal yaakaar naa ne soo jëkkewul Touba ah doo ko mujjee ndaxte ab lim ci nit mate ko koom-koom bi mate na ko waaye li fi sëñ liggéey ba tax dëkk bi nekk dëkk jëmukaay yi nit ñi yaakaar ko ci diine yaakaar ko ci koom yaakaar ko ci lu bëree mu nekk dëkk bu am solo ci réew mi yaakaar na ne programme bu ñu yëkkati Touba ah bu ci jiituwul kenn du ko jiitu te maire wax na ko léegi Ila Touba bi indi na développement ak yaakaar bu rëy entreprise yu bari tey bëgg nañ ñëw installé wu ci région de Diourbel te Ila Touba bi moo indi loolu ndax dem léegi dikk bi dafa yomb pour nga dem Dakar une heure de temps une heure quinze nga dem Dakar pour nga jege fa ñëw yàggatul te loolu dem dikk bi ku ko réglé rek saafara nga saafara développement du ma yàggal nag ci kàddu gi. ndax mu ngi tiis jébbal kàddu gi sëñ Bas di leen wax ne day man ngeen a ci ñun te xam ne ñun taxaw nañu pour jàppale Touba pour mu jël kanam wasalaamualeykum wa rahmatullah wa salaam. ñu ngi ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général des mu yàgg fi te wér di ñaanal sama sëriñ di waral ma taxaw fii tey di wax sëriñ Sidi Abdoul Ahad. mu yàgg fi lool te wér moom njabootu Serigne Touba gi yëpp maa ngi yi fi teew yëpp kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol sama Serigne Serigne Mahamadan moom Serigne Abdoul Ahad mu joxal ma ko mboolem njaboot ak Serigne Touba gi fi teew tegal ma ko ci loxol Serigne Bachir Mbacke Abdou Khadir mi nga xam ne moo yor kaddu Serigne Mountakha xalifa général des waaye mu joxal ma ko Serigne Abibou Mbacké di Serigne Fallou Mbacké ma di ko nuyu bu baax a di ko sargal di sama wëllëre di nuyu Serigne Mouhamadou Mamoun Mbacké di Serigne Abdoul di nuyu Serigne Abdoul Ahad Mbacké Abibou di nuyu Serigne Cheikh Bara Lahad Mbacké sama xarit bu yàgg boo xam ne lu ma mas a nekk ma nga ca fuy moo mas a seen seen ko fa démb ba tey jii di nuyu Serigne Cheikh Abdoul Ad Latif Mbacké di nuyu Serigne mi nga xam ne mooy rakam di nuyu Serigne Fall Mbacké Bara ak waa kër Serigne Sama Serigne Bara gépp di nuyu Serigne Koso Mbakke bu Serigne Mountakha mi nga xam ne sama wëllëre la te yàgg fi lool boobu ba nekk ni mi ngi fi di nuyu Serigne Cheikh mbacke moom sëñ Mahmadan mi nga xam ne conseiller ci conseil municipal bi di nuyu Serigne Sidi Mbakke Serigne Cheikhouna mbacke ak njabootu Serigne Abdoulaye di fi nekk yëpp. di nuyu njabootu Serigne Sidi Abdoul di nekk ci kaw yëpp tey samay Serigne nga xam ne depuis trois heures ba léegi ñu fi di ci ràññee di ci jox Serigne Sall Sidi mu jox ko mbooleem njabootu Serigne Abdoul Ahad di góor ak jigéen mag ak ndaw. di nuyu Serigne Sall bu jaxate bu soxna May bu Serigne Abdoul Ahad ak rakkam ji mu àndal Serigne Abo. ak Serigne Cheikhouna ak mboolem njabootu Serigne Abdou Lahad ji fi teew seeti Serigne Abdou Lahad wax naa ko di nuyu Murtada Mbacké mu Serigne Abdou Fatah Fallilou di ko jox nuyoo bu mu joxal ma ko waajuram Serigne Abibou Mbacké mu joxal ma ko mboolem waa Touba te kanam yi te ñu mobilisé wu mobilisé ànd ànd bu toll di mbooloo mu bëree teew fi di képp koo xam ne kilifa nga bu nekk ci kaw tànt bi muy góor muy jigéen muy mag ak ndaw waaye di sama sëriñ sëriñ Cheikh Sall mi nga xam ne ku nekk gis na sama diggante ak moom ku nekk xam na ne doomoo na ma def na ma taalibe def na ma wàjju def naa ko wàjju def na ma doom doomoo na ma ak njabootam ñoom ñëpp ñu ngi fi teew su ma ci tuddee Serigne Moutada tudd Soxna Maam Say ñu joxal ma ko nuyoo waa kër Serigne Souhaïbou bi yëpp di nuyu mbooleen njabootu Serigne Touba ji fi teew di nuyu Serigne Khadim Mbacke Aliou mi nga xam ne mi ngi fi teew ak waa Daaru Khoudoss yëpp di nuyu li tàmbalee ci kër Serigne Modou Moustapha ba ci kër Serigne Moutada képp koo xam ñëpp ñu ngi fi. kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu di sakku ci ñaan di la ñaanal yàlla bu del taw fante wéree say cër ndax mënuma leen a fay muy góor ak jigéen mag ak ndaw di mboolem association yi fi teew damay njëkkee waa Madiana yi nga xam ne fi la tali bi war a tàmbalee jëm saam ak sëñ jëm saam ak sëñ Baara Faraja jëm saam jaxate jëm buqatul mubarak ak mboolem quartier yi nga xam ne waa bi dana ko traverse te ñoom ñëpp ñu mobilisé wu góor ak jigéen mag ak ndaw ñëw fii di nuyu Serigne Saliou Dieng mi nga xam ne kere bi ñu ko bëri ci rek lañ ko wax jëlee ndigal ci Serigne bi wax leen ko kenn ku ci nekk nelawatoo toogatoo ba yëf mel nii kay muy mbooleem sef de village yi nga xam ne ñoom la di nuyu waa Saam di nuy waa mu Mubarak di nuyu waa Saam Sëñ Baara Faraja Saam Sëñ Abdou Latif Madiyana ñoom ñëpp ak waa Jannatul Mawa lan ci ñoom ñu ngi fi Sëriñ Basiru yàlla muy dogal moo dogal ñu jox ma sëriñ bi yëkkati ma sëriñ Sidi Abdoul Ahad di sëriñ Sidi Maxtaar Mbakke yal yàlla dolli leeram yëkkatee dëkk bi teg ko ci loxol sëriñ Sidi Mbakke Abdoul Ahad ne ko dama bëgg nga jàpp li téel ma dëkk bi sëriñ bi wax ma ci wax ju doy waar ne ma ah sëriñ Sidi Maxtaar mi ngi liggéey sëriñ Tuubaa bi dafa tegu ci kawam mu yëkkati liggéey bii teg ko ci sama loxo te man de bugguma cee jox ko ko bugguma cee yàqu bugguma cee yàqule bugguma cee du ma ko jox ku koy foye du ma ko jox ku koy yàq dama koy jox koo xam ne du ma ci am ak jam-jam mukk ci àdduna te man de natt naa yaakaar naa ne seet yaa ngi ko yor du ma ci am ab jam-jam njaboot ak Serigne Abdou Lahad am jam-jam te njaboot ak Serigne Abdou Lahad mooy njaboot ak Serigne Souhaïbou mooy njaboot ak Serigne Saliou Mbacké radiyallahu anhu kon su fekkee ne yàlla dogal na ñu nekk ci ci diggante Serigne Modou Moustapha ba Serigne Mourtala ak mbooleem seex boo xam ne ci yoonu murid nga nekk nga jël ñu jël ay ndaw kenn kër gu nekk jël ndaw cheikh bu nekk jël ndaw kër gu nekk ñu def ko loolu mooy composé commune Touba ngeen boole ma ak fukki sëti Serigne Touba ak juróom-ñeent ma nekk ak ñoom ci conseil municipal bi te Serigne bi Abdou Aziz nekk ci bopp bi ànd ko ak man dama ne woon mbiram Serigne Sidi Abdou Aziz sama diggante moom dootuma ci wax ndax li Serigne Abdoulaye waxoon ko ami bët akam xel xam ne sama digganteeg moom te ku ko ci bët jarul wax ma nga nee kon sama digganteeg Serigne Sidi Abdou Aziz ku nekk xam na ko ñu ànd ak conseil municipal bi juróom ñaar mandat bee ba mu jeex ñu ànd mandat bii ba mu jeex ba mu toll fii tey suñu taxawee liggéey liggéey bu toll ni bii ñu liggéey ci dëkk bi waxuma ne def nañ fi lépp waaye lépp luñ ma a am wut nañ ko lépp lu mën a def def nañ ko ci kon bu ñuy taxawee fi tey Serigne Bassirou nga teewal fi Serigne Mountakha dinañu la leeral tuuti ci li nga xam ne mooy li nga li ñu weesu ci liggéey bi gannaaw bu ñu santee ñëpp waaye di la xamal ne kenn mënul dara lu rafet rek ci liggéey bi jàmbaar yooyu ñu ma boole ak ndaw yu tedd yooyu nga xam ne ay kilifa leen fi yebal ñu taxaw ñu ñëw ànd ak man juróom ñaari at tey ba nekk fii yàlla dimbale ni musuñu ñoo lijjanti musuñoo yenu ab safaan wala coow ne nañ dem Cheikh Bass lijjanti ko saa bu ñëwee li nga xalaat nga wax ñu ko suñ demee tër ko suñ borom baaxe ñu ñu am ci mu ñëpp déggoo ci ñu andi ci loola. loolu nag boo amee faw ma sant conseil municipal bi waaye ma seeree la ko yow mi nga xam ne yow lañ teg ci suñ kanam ngay suñu jawriñ da ci ci ci liggéey bi. ci te nga yor kaddu sëriñ bi ma di leen xamal ne rek li ñuy li des li li ñu waral ñu taw fii tey mooy ci biir liggéey bi xam naa ne gouverneur de la région de Diourbel dana ci ñëw mooy dafa am liggéey boo xam ne senegal dañ koo séddale juróom ay pàcc pàcc pàcc muy juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom ñaar ñu teg ay sart ak i loi ak i décret ci réew mi wax ne commune bu dee commune nii lay doxee ñi nekk ci commune ba nii lañ war a doxee tënk ko ci doxe ay procédure yoo xam ne administration ñoo koy seere di ñu contrôler bu président de la république monsieur Macky Sall mi nga xam ne yàlla dogal na ko am xam-xam la ci réew waaye ku bëgg liggéey la waaye ku bëgg réew mi la waaye ku xam ni développement la ci réew mi di ko am yéene ci Touba dëkk bii ñu nekk tey teg ay critères boole ci Touba ñu dugal ñu ci commune yi nga xam ne war nañu ndax dañoo jël fukki commune ak juróom muy fukki région yi ak juróom dañoo jël fukki communes yi ak juróom jël ñeenti communes yi nga ay région waaye commune yu mag lañ te Touba bokk ci Pikine bokk ci Tivaouane bokk ci Mbour muy fukki commune ak juróom ñeent la ñu jël boole leen ne leen danañ leen président de la république mi ne ku mën a lijjanti ab xaalis la te bëgg na mel ni Dakar di waa Fongolo di ko waa Dakar di ko dund waaye li waa Dakar di dund waa Matam di ko dund mu jël projet bu ñuy wax PACASEN muy appui projet buy dimbale communes yi ñu mën a def infrastructure publique yi nga ne moom lañ war am te seen doole matiwu ko ñu mën a bénéfice wu ci loolu boole ko ak li ñuy am ngir mën a def li nga xam ne moom la askan wi soxla loolu mooy PACASEN mu ànd nag ak ay mesures d'accompagnement ak i procédures yoo xam ne képp koo xam ne tegu nga ci yoon te niñ la waxe nga defe ko ni da nga ci bénéfice wu ba mën cee am loo dollee ci sa budget ba mën a réaliser ay infrastructures publiques yoo xam ne saw askan dana ñu ci mën a dana leen mën a jàppale ci ci lu mel ne ay yoon lu mel ne ay hôpitaux lu mel ne ay dispensaires lu mel ni ay case de santé lu mel ni ay école waaye lu mel ni ay adduction d'eau lu mel ni ay forage loolu nag bu ko président de la république initié xalaat ko tëral ko def ko ba yàlla dogal Touba bokk ci ñi mu nattoon ne ñu ñu yàlla ñuy góorgóorlu di góorgóorlu ba liñ sàtt ku ko def dañ ci bokk Touba bokk ci ah loolu lu am solo la bi ñu ci bokkee nag permettre nañu ñu am loo xam ne mën nañu cee def lu toll nii goudron bii nga xam ne mën na huit kilomètres deux cent sept kilomètres de cent quatre-vingt-trois mètres la woon waaye ci càmbar bi ñu mujj def te bi ñu ko defee ñeenti commune jiitu ci Sénégal te ñeenti commune yooyu Touba bokk ci ndax mën naa ne ci ñi jiitu laa bokk maag sama conseil municipal ba tey ñu am huit kilomètres deux cent yoo xam ne war nañ ko mën a goudronner ci biir dëkk bi loolu moo tax directeur technique bi entreprise bi wax na ko léegi ñu jël ay torsion yoo xam ne farata lool ci dëkk bi farata yi nag bari na ci dëkk bi ni ko Serigne Mourtala bu Serigne Cheikh Say waxe waaye kon ndar xëyul sotti te nit nit day tàmbali lu mu am defe ko li mën a am di def bu defee lii tey bu ëllëgee mu def lii bu yàggee lépp dana rek te loolu yaakaar nañ ko ci président de la république ndax fi ne cëpp ci senegal defal ñu Ila Touba bii nga xam ne doy na teraanga doy na teraanga sëpp ci li mu liggéeyal Sëñ Touba jëlee ko Thiès indi ko ba Touba dolli ci hôpital bii nga xam ne vingt la pare na ñu ngi koy inauguré waaye dolli ci tali bii nga xam ne mooy tali corniche bi nga xam ne treize kilomètres la ah loolu su ko fi defee. jël assainissement treize kilomètres def ci dem ci benn usine mbalit bu dem dix-sept yaakaar naa ne dëkk président de la république li ko war lépp mi ngi ci liggéeyal na dëkk bi bëgg na dëkk bi jox na ko cër jox na Serigne Mountakha ab cër te mi ngi fii jëf te jëf moo ëpp doole wax kon bëgg naa képp koo xam ne yaa ngi fi nga xam ne man de sama xarita ndax li ma ko xaritoon moom mooy lim bëgg dëkk bi te lim man lépp ni ko ciy def guddi lépp loo xam ne yaakaar na ne njëriñ baax na ci dëkk bi dana ko defal boppam lépp luñ ko wax dana ko def nit nag mënul weesu loolu kon nag Serigne Bass ñu dela leeral ne xam nga ko sax kilifa yi fi nekk yëpp xam nañ ko waaye danañu wax yoon la ci li alquranul karim di wax li alquran di wax لأن دي واخ لالقران كان وما سهلنا الى بما حللنا نيت دا فاي سير لي مو خمت يالا تخ كون سيرن بشيرو لولو مو تاخون ما ني دنا لا و دنا لا كو ليرال تي بير ليغي بي خاينا غورلو دنا تي نيو تي كانام توتي واي دال نيغي امنا تالي بي تامبالي نينكو dañu bëgg poste premier père bi entreprise bi tambali entreprise bi nak commune bi tay newul am naa cinquante pour cent wala quatre vingt pour cent des des des budget communes di xaalis bi mobilisé nañ tey xaalis bi lépp mi ngi tegu ci trésor entreprise bi bu pare woon suba ñu fay ko avril deux mille vingt deux mois de avril deux mille vingt deux tali bi war a pare ñu war a taxawaat fii inauguré ko yal na yàlla dogal ñu fekk ñu fi ci jàmm ba ñu inauguré ko ak jàmm te ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi te wér a njabootu Serigne Touba gépp am na nag lu bare bari lu ñu war a liggéey loo xam ne dafa ànd ak dafa ci ren jii ci ay post de santé ci ay centre de santé ci ay salle de classe ci addition d'eau ci éclairage public loo xam ne ci l'ensemble des communes de Touba mboolem dëkk yi nga xam ne wër na dëkk bi mi ngi ci biir dëkk bi fas nañ ko fi yéene def ngir ka nit ñi mën a am seen jàmm nit ñi buñ sox buñ feebaree mën a faju buñ bëggee dem mën a dem buñ bëggee jàng mën a jàng ndax ku nekk xam na ne dëkk bi laaj na éducation jàng mi laaj na taxaw bu baax a baax ndax bari nay xale tey adduna gone boo ko bëggee dimbale da nga koy jàngaloo kon daaray alquranul karim ak école publique yi faw ñu yokk ko eh, ba ak daara ak centre de formation yi ba nga xam ne nit ñi xale yi danañ jàng ñi nga xam ne wéy nañoo jàng ñu former ñu liggéey loolu it président de la république defe naa ne ku nekk gis na centre de formation bi mu fi tàmbali muy jëf ju am solo ngir bëgg xale yi mën a jàng ngir ngir bëgg xale yi mën a jàng ngir xale bëgg xa yi mën a jàng waaye képp ku ci rëcc ci njàng nga mën dem jangi liggéey loolu daal mooy li ma ne woon danaa ko leeral te man dafa am lu ñu sëriñ Abdou Lahad yare muy wax moo jëfay yobale wax waaye di wax du yóbbaale jëf bariwul lu ñu luy tàmbali ab di pose premier pierre lu bari dañuy dan liggéey rek di dem ndax defe naa nyari, juróom-ñaari at yi liggéey nañ fi quatre-vingt-cinq salles de classe ci vingt-six écoles yi nga la commune Touba am te ñu ngi nii di liggéey ñaar fukki salle de classe tey jii tàmbali nañ ko moo nekk en cours muy cent cinq salle de classe def nañ ko ci juróom-ñaari at yi ci commune Touba liggéey na boo demee ci wàllu santé liggéey na juróom-ñaari poste de santé yoo xam ne tabax nañ ko équipé ko mi ngi faj fii ñu toll ñu ngi tabax ñaar danañu tàmbali juróomi poste de santé ci weer wii xëy na suñu ministère tutelle suñu ministère tutelle euh, Omar Gueye dana fi ñëw pour pose premier pierre bi muy fukki poste de sant ak ñett yoo xam ne danañ ko def ci commune bi ci suñu mandat bi ah def nañ lu mat ñaar fukki dëkk ak juróom-ñett yoo xam ne yóbbu nañ fa ndox te actuellement ñu ngi ci fukki quartier ak ñett yi ñuy yóbbu ndox ci différents villages yi ci commune Touba. éclairage public du ma ci wax ndax li Serigne Abdoulaye waxoon lu ne fang jarul wan ku ami bët ku amuti bët jaruñ wax ma nga nee ndax boo ko ko waxee du ko gis yaakaar naa ne dëkk bi leer na nañ loolu nag suñu ko waxee danañu ci sant bu baax a baax a baax jàmbaar yi nga xam ne mbooloo lañ mu ànd di liggéeyal Serigne Touba muy Touba ca kanam te Serigne Abibou Mbacke nekk ca bopp bi te ñoom ñëpp ñu ngi fii tey ci base bi mu wane ne liggéeyal Serigne Touba min bi ak Touba ca kanam ak ma ak ak muxaddimaatul xidma ak Hizbut Tarqiyyah ak ak Xudaamul Xadim yooyu yëpp dañoo ànd di njaboot ak sëriñ bi di liggéeyal sëriñ Touba benn nit lañ du ñaar ndax ni nul mu toll nit mënul toll nenn ba romb taalibe sëñ Touba te kenn bëggu la génne ci taalibe sëñ Touba te ñun ñëpp benn lañ ñu ngi fas yéene ànd takku di liggéey ba lépp loo xam ne dëkk bi war na koo am ñu defal ko sëñ Tuubaa ci dëkk bi askan wi jariñoo ko ndax loolu la sëñ Muntaxa bëgg loolu la bëgg ñëpp ànd nekk benn di liggéey di ngir ñu am ngërëmal sëñ liggéeyal waaw li tax ma bokk di mooy li tax ma bokk ci mooy day daa jug liggéey ci liggéey Serigne Touba bi Serigne Sirim Sëñ Abdou Lahad jox ko ko ñu bokk Serigne Sirim Sëñ Abdou Lahad ñu gis ni muy liggéey ci Touba ñu créé 100 pour cent ñu ànd ceeg moom ci liggéey.